ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci sambi junni sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien ka deru nit te mu leer na diw kii li nga koy wax dara nekku ci nga yàq daram wallahi yaa ngi def loo xam ne ëllëg boo duggee sa bàmmeel da ko réccu kon xéewal googu la yàlla jox muy internet waay waaye liggéeyal suñ borom yaa ngi sa tele liggéeyal yàlla ci tele bi la yàlla jox def ca loo xamante ni ëllëg dana jariñ société bi te du leen heurter seen aada du leen arti seen cosaan du leen arti seen diine moo xam diine ju man di doon yooyu yëpp suñu borom la ko jox ngir nga ngir nga ngir nga tasxiir ko nga nga nga nga nga nga wom ko ci ci ci jaamu suñ borom subhanahu wa taala wërsëg waag xam-xam baag lu mën di doon sa doom yi la suñu borom jox sant si yàlla mooy yar leen yarul islaam ba ëllëg boo demee wala leen ginnaaw ñoom duñu rëccu waaye dara ji la yàlla jox dimbali si jaami yàlla yi léeg-léeg nga am daraja lool nekk nit ku baax doomu aadama ñëw wax la xewam mu leer ni la boo boo ca teewee loolee dana ko yokk daraja waaye waaye teew ci ngir loolee yokk ko daraja loolu sant yàlla la sa daraja moo tax borom xam-xam bu baax waa ji dafa ñëw laaj ko ni ko cër yi ma suñu borom jox nu ma ciy sant yàlla mu ne ko suñu borom jox na la ñaari loxo jox la ñaari nopp jox lay tànk ñaari tànk jox la biir aku làmmiñ mu ne su nopp yi niñ ciy sant yàlla mooy lépp loo dégg ci lu baax wala sa bët yi bokk bët yi njëkk sa bët yi niñ ciy sant yàlla mooy lépp loo gis ci lu baax waaye waaye na tasaaroo na ko ñëpp gis waaye lépp loo gis ci safaan ba nëbbu ko ba yam ci yow nee ko noonu lañuy ñuy sant yàlla ci ay bët mu ne ko sa nopp yi nag ni ñu ci sant yàlla mooy lépp loo dégg ci lu baax waaye waaye wattu ko te ne ko ñëpp dégg waaye loo léegi sa safaan ba téye ko bu ko kenn dégg mu mel ni jamono yi léegi safaan ba la nit ñi di def nit ñi yàkkamti nooy dégg benn audio boo xam ne day yàq deru nit bañ tasaare ko ñëpp jot ci te yoo xam tasaare ga nga koy tasaare ci képp ku demaat bokk nga sa bakkaar ba muy bakkaar boo xam ne dañu koy bindal rek muy dem xamoo kañ lay xamoo xamoo kañ lay jeex ndax mën naa dem ay junni junni at kon lépp loo dégg ki safaan ci doomu aadama muy lu ñaaw soo ko déggee yow nëbb ko na yem ci yow na ci yow bu dee lu baax nag ni ko jik bi dégg munu ko sant yàlla ci sa biir nuñ koy defee wala say loxo sa ñaar loxo ni ñu ci sant yàlla mu ne ko mooy lépp loo xamante ni loo moomut ba fa sa loxo yi bu si jël lenn loo moomut lépp loo moomut ba ko fa waaye na nga ba sa ñaari loxo yi bu si xañ kenn àqi suñu borom subhanahu wa taala ak yàlla ji def sa sa loxo yi koo mën a dimbali koo mën a koo mën a dimbali ak noo ko mën a dimbalee ci sa wërsëg ci sa doole sa daraja nee na loolee ko sa dimbali waaye na nga fexe ba sa loxo yi nag bu ci def lenn loo xamante neexu suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko nan lay sant yàlla ci sama biir mu ko sant yàlla sa biir mooy ca suuf ga na nga fexe ba def saw ñam na ko suñ ba waxee woon lu maat ay tib ndaw ngir nga mën a sa biir ba mën a julli waaye la sa des lépp def ko mooy xam-xam nee biir mooy nga fexe ba mu fees dell ak xam-xam si loolu si Ahmad Tidiane Sarif yàlla nañ ko yàlla yàlla fayal al maktum daana ko wax daana wax ne xam-xam dëgg dëgg dëgg mi ngi sa dënni góor yàlla ya kon fexeel ba sa biir bii nga wattu ko xam-xam mooy xam-xam bi day koy mokkal comme na ko waykat ba waxee woon chakawtu ala wakki an a xifsi fa arsatni ila tarkil maadi wa allamani bi anna al ilma nuur wa nuuru laahi wa nuuru laahi laa yuta lil aasi batni waaun la batna sunduqi sama biir mu lay wattoo xam-xam yi du ay du kaggu yu may dem kon na fexe ba duy sa biir bi li nga li nga war seera mi am na àq ci war lekk nga lekk waaye na nga fexe ba la des lépp nga xam-xam mu ne sa cër sa cër yi la suñu borom suturaal ba kenn du ko gis cëri biir yi moom nu ma siy sant yàlla mu delloo ko ci aay wala zina li furujihim xaafidun illa ala aswaajihim aw malakat aymanuhum mu ne ko sa cëri biir yi yàlla suturaal ba kenn du ko gis na nga cay sant yàlla mooy na nga na fexe ba wattu def ca lu ñaaw lu dul la yàlla daganal ci yow muy say soxna ak nga xam yaa moom tañ dagan ci yow mais sa cëri yu biir yooyu la yàlla suturaal nee noonu nga cay wattoo noonu noonu nga cay sant suñu borom subhanahu wa mu ne ko sama làmmiñ rek nga ma ciy sant yàlla mu ne ko santuk làmmiñ nag maa ngi lay xamal ni di sant suñu borom si sa làmmiñ te doo ko jëf say cër mi ngi mel ni koo xam ne dafa jëndoon am mbubb ngir ab sedd wala tàngaay wala taw au mu sol mbubb may mu jàpp mu jàpp sa catul mbubb la di ko diri solu ko nee du ko fajal tàngaay ba du ko fajal seddaay ba du ko fajal taw ba maanaam cant gu yow si làmmiñ te amul ay acte ay jëf nee na amul solo dafay ànd ak ay jëf moo tax borom xam-xam yi di tàqale diggante sukkur ak hamd ñu ne hamd mooy cant goo xamante ni da koy wax saw làmmiñ waaye bu dee sukkur nag moom day ànd ak jëf moo tax suñu borom waxut i'malu waxut quulu ala daawuda sukkur waaye dafa ni i'malu waxut yéen waa daawuda wax leen ak cant waaye dafa ni jëf leen kon cant dafay ànd ak jëf dafay ànd ak action dafay ànd def sant dafay ànd ak jëf dafay ànd ak ànd ak def dafay ànd jëf dafay ànd def beneen bi sopp mooy ban ngëneel moo nekk ci ñi nga xamante ni dañuy sant suñu borom subhanahu wa taala ak cantkat yi way sant yi ngëneelul sant ak ñiy sant yan ngëneel moo nekk ci ñoom ñiy sant ak ñi ak baatu cant ak ñiy sant lan ngëneel moo nekk ci loolu ci ñoom bi njëkk mooy cant dafa bokk ci tuuri suñ borom subhanahu wa ci melokaani suñu borom subhanahu wa taala yi suñu borom moom ñu wax inna safa wal min sha'airillah ba ba bëgg dem ba dem ba aay ba bëgg a jeex mu ne inna allah shakirun alim waaja kon loolu day wane ni suñu borom soo wa taala melokaanam bokk na ci melokaanam ak cant te loolu fàtte woon naa ko wax ca définition ba suñu borom subhanahu wa ak cant bu ñu waxee cantuk yàlla moom li muy tekki mooy boo jëfee lu mu téew néew néew néew te jëf ja sell suñu borom jël jëf jooje fulal la ko loolu mooy cantuk yàlla ci ay jëfi jaamam wala boog ak njëggaluk yàlla ci ay jëfi jaamam loolu lay tekki moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon ñu muy den dafa benn waay buy dox ci àll bi ci mbànding mi mar xaw koo rey mu sonn lool mu daal di wëlbatiku gisub teen seen ba tàng naan ba màndi ba muy wëlbatiku di dem seen xaj boo xam ngi ma mar ba yelkat di mar suuf sa ndaxu mar mu xalaat ca xolam daal ni ah xaj bii boo demee li ma dal ci mar moo ko dal daal di summi dal wam soloon wàcc seen bi di tàng di jox xaj bi muy naan di tàng di jox bi muy naan di tàng di jox xaj bi muy naan mu màndi ba xaj bi màndi mu wëlbatiku dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ne kooku de yàlla yàlla sant na ko yàlla jéggal na ko kon sant ga mooy ak jéggal ci moom yàlla sant na ko mooy yàlla jéggal na ko kon lu am solo la ñu bàyyi xel ay bàyyi ma yi da nit koo xam ne day yor day yor. bàyyi ma aw fas la wala lu mën di doon di ko liggéeyuloo ba mu màgget mu sànni ko wala mu koy liggéey dóor ba muy ba muy bëgg a faatu mu sànni ko ba mu faatu te du ko te du ko te def lenn te te war koo te xam ne moom dund bi mu dund ak xéewal yi amoon ci fas wi la jógee ndax moom la daan dawal lam say am moom la daan dundee kon nga war koo teral fii ku fi dëkk ak mag njëkk ñi ku fi dëkk ak mag ñi maanaam mag njëkk ñi ku fi dëkk mag sa maam wala dara da gis ni ñoom bu ñu ma sànni yor fas bu fas wa daanoo mooy bu fas wi dee duñ ko duñ dañ koy gas suul ci kër ga wala ñu gas wala ñu génn gas ko suul waaye duñ ko sànni ngir teral gi ñu mënoon teral bàyyi ma fii nag gis xale boo xam day yor aw fas da koy ba yow boo gisee fas da gis yaram yëpp di ay góom wala mbaam lu nekk la ñu di def te man nga ca am yàlla mën nga ci am àjjana ëllëg soo ko defee na nga ko war a def noonu tamit nga ci amee safaan boo ko defee na ko war a def beneen bi ci topp ci sifaat melokaan yi nga xamante ne si ak ngëneel yi nga xam ne nekk na ci cant mooy melokaanu anbiya yi la yonente yi suñu borom subhanahu wa taala woon ak cant seen melokaan la yaa ngi dégg alxuraan wax ni zurriyatan maa ma man amal na maa nuuh innahu kaana abdan shakuran nee na nuux day ab jaam la woon ab cantaakun la woon ku mënoon a sant la woon aji sant la woon ku mënoon a sant la woon kon melokaanu nuux mooy ab ab cantkat ab santkat la woon niki noonu ba mu ñu mel ibrahim mu ne inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yakun min al mushrikin nee na ibrahima kaana mursidan ummatan kaana mursidan kaana mualliman kaana imaman ibrahima ab jàngalekat la woon ku doon gindi doomu aadama yi jëmaleen ci mbaa njiit la woon leader la woon waaye nekkoon am mushrik nekkoon yahud nekkoon nasaraan waaye lan mooy saahid ba mooy shaakiran li anamihi daan sant xéewali ko suñu borom defal moo tax borom xam yi di wax foofu ni Ibrahima lépp lu mu daan def daan sant su daan lekk su daan naan lu mu mënoon di def rek day sant yàlla subhanahu wa taala ndax moom lépp daan sant si xéewal ko suñu borom defal moo tax xataada du ñu nettali ca Buxaari mu ni yoon bi alayhi salaatu wasalaam dafa daan julli ba tànkee di neewi buñ ko waxee ni ko montaa yow de yàlla jéggal na la say bakaar lu tax ngay teg sa bopp coono bi mu ni afala akunu abdan shakuran ana man de du ma nekk jaam buy sant ana waruma sant wa taala ana waruma sant suñu borom subhanahu wa taala faskuruni askurukum washkuru li wala takfuruni ca baqara yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen dee leen may tudd seen laam ji tooy xépp ci tudd suñu borom subhanahu wa ma di leen tudd sant leen ma te bu ma weddi sant leen ma te bu leen ma weddi kon képp ku santul yàlla rek yaa ngi weddi képp ku santul yàlla yaa ngi weddi sant leen ma te bu leen ma weddi kon képp ku santul yàlla yaa ngi weddi beneen ba ci topp mooy ak cant ndigal la suñu borom subhanahu wa taala moo ko digal ndax moo ñu digal ba mu ñu waxee waajur dénk ñu suñuy waajur ngir coono ba mu am ci ñun ëmb baag imbi baag nampal baag yooyu yëpp ba pare muy nag waaye na ngeen na ngeen ma sant man yàlla nag ak sant seen ñaari waajur kon sant ndigalu suñ borom la yàlla moo ñu ko digal te ndigalu suñu borom moom imtisaal rek la war la moo ci war a topp mooy jëfi ndigal la rek taa rek moo war a topp topp ndigal rek moo ci war a topp Moussa alayhi salaam yontu yàlla di mu dëggoo digaloon moom te muy sant yàlla wax ko di ko maa la tànn jox la sama sama mission bi wax ak yow foo xamante ni musuma ko def ak kenn wax ak yow waaye musaa kon lii ma la jox muy gindi doomu aadama yi jël leen ci di lëndam dugal leen ci leer téye ko bu baax a baax a baax a baax wa kun mina shakirin soo defee loolu ba pare nag nekkal bokk ci santkat yi santal yàlla del sant yàlla ci ci wax di sant yàlla ci jëf di sant yàlla soxol xol bokkal ci santkat yi bokkal ci cantaakun yi maanaam lu ma jubli ci baatu cantaakun nag mooy ab kuy sant yàlla cant ñi nga xam dañoo mën a sant suñu borom di sant yàlla waaw ni ko borom xam-xam jublu loolu laa jublu ci baat mais jublu ma ci baat bi si ñeneen li ñu ci jublu li ma mooy sant yàlla subhanahu wa koo xam dafay sant yàlla man day day day day day day day sant suñ borom bu baax a baax a baax a baax a baax mooy ab cantukat ko bokkal ci santkat yi waaye yàlla yëmu ci dénk ko sa yonte yi rek waaye ñun tamit mooy ñi nga xam ne ay way gëm lañ bokk maanaam ñi nga xam ne ay gëm lañ bokk ñu baax ñi nga xam àgg nañ ci martabal gëm yàlla ba leen waxee lu tey yi ma leen defal kuulu min at-tayyibaat yu tey yii ma leen defal lekk leen ci xéewlu leen ci ci li ma leen wërsëgale waaye nag washkuru na ngeen sant lillahi ñeel yàlla ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 mu mujj génne te xew ci jamono tablet Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core x ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87